labirante ci mbindum ko tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul te émission bu leen Touba Argentine TV indil ngeen di ci ànd ak boroom xam-xam bu mag sëriñ Moustapha ajuma bu jot 20h sëriñ Moustapha Lo dina ànd ak yéen ci émission labirante ci mbindum Cheikh Ahmadou Bamba mu Rasoul ci labyrinthe ak yéen yéen ñi ñuy seetaan ngeen mën a indi seen ay xalaat ci émission boo bile ci numéro yi daw ci suñu écran yi émission labyrinthe ngeen di ci ànd ak Serigne Moustapha ajuma bu jot 20 di 8h bu Argentine mun na ma doon émission bu am solo en direct ci Touba Argentine TV.